tiiree nii ci kaw ay doomu aadama parce que loolu musiba la obligé leen ñuy dem nag commencé nag yàq ak taal ak yooyu loolu mënoon nañ ko éviter. surtout ci départ dossier bu ñàkk fayda bu ñàkk solo bi bu ñàkk teggin bi wax dëgg yàlla jaru ko. Euh, seen client moom euh, anamu nag ak naka la dundee mbir mi ndax mu ngi ci biir kër ga. mu ngi koy dund ak ak métit ah mu ngi koy dund ak euh, métit ah, mbokk xarit yaa ngi koy seet di ko masawu di ko témoigner seen solidarité. mi ngi ci mi ga. absolument mu ngi ci kër ga fan ngeen bëgg mu nekk ci kër ga moom il est serein Ousmane Sonko bon dafa yàgg nekk ci ay arts yooyu te nitu jàmm la boo gis mu ngi reetaan mu ngi kaf ak nit nit la nag am na lu ko metti am na lu ko métti di kàddu yi maître Khoureychi Ba di kenn ci avocat yu Ousmane Sonko moom dégg ngeen ko nu gën a yaatoo moo doonoon bi que moom maître Khoureychi Ba